avoir donc loolu si macha allah loolu tamit. feeñ voilà mais nag moytul am ñaari jabar de. Hmm, maa ngi ñaar. ah kon nag macha allah kon nag moytul mu ñett. Hmm, mu lay waaj. ah. mu lay waaj bi. Ah, ngi nii de carte yi ñoo xool. waaw. waaw nee na nag soo deful naa di am ñetteel de te puis euh, nga baal ma ci wax bi di nga am ñetteel boo xam ne xale lay doon ah du nekk mag-mag yooyu ah. hmm. allo. waaw waaw waaw waaw maa ngi dégg damay xoolaale damay kiiwaal dégluwaale moo tax. ah ok voilà donc voilà di nga am euh, benn xale boo xam ne mun naa ne du nekk mag carrément mais quand kooku dina la gis bëgg la te fi tamit mën na nekk am sëy seen diggante aussi. incha allah voilà macha allah quoi donc loolu aussi feeñ na fi bu mais nag euh, nit nga tamit boo xam ne euh, mun naa ne tamit jigéen ñi aussi dañ lay topp des fois. toog si ñoom. fii amul nëpp de lépp la leer leer. non lu waxal lépp kay ñoom dañu xaw a yéeme mais ñuy xam suñu bopp rek. <laughs> voilà donc loolu aussi feeñ na nee nag ci ni nga mel la aussi moo tax jigéen dañ lay topp. Hmm. voilà donc loolu aussi macha allah mais nag euh, leen tamit gis naa ko aussi rouge aussi waroon na nekk foofu nga puusal ma ko de couleur rouge. couleur rouge waaw chemise bi ma sol rouge waaw. waaw mën nga ko dindi wala mu puus carrément. chemise laa sol. ah mbaa solo ko ci mbedd bi di ma woo. non non non non non non. ah mais chemise bi il faut mu dañ de su nekkee am na lu rouge moom il faut mu dañ pour ñu mën a jokkoo. pour mu dañ carrément. ah oui parce que dafay xaw a baare tuuti seet bi te puis dafay am lu may bëgg a wax sax du ma ko mën a wax. waaw chemise dafa bleu mais dafa am ay rëy rouge quoi. ah yooyu de moo tax du ma mën a dem nag parce que daf may xaw a bloqué quoi. waaw a bloqué ah, il faut nga dindi ko. jar na voilà. voilà donc. Euh, waaw yóbbu ko ah? dindi nga ko waaw. voilà léegi nag daf ma woon aussi sa état de santé ah, parce que des fois euh, da ngay faral di am tuuti ay mal à c'est-à-dire mën na nekk ay pensées yu bëri wala xalaat yu bëri te loolu dafay dem ba après mën na la indil ay stress. damay stressé wu. voilà da ngay trop xaw ma nag looy xalaat mais xalaat bu bari na de. Hmm. voilà donc loolu aussi feeñ na wala ñaari jabar yi la. ñaari jabar yi la koppar. du <laughs> loolu takkal wu ji kay mu rey lu ne la yi def. ak wax de ñaari jabar ñaari soxla. Ah, non soxla yi sax garaawul. ñoom ah. ñu normal tu sais y uh-huh. mais jaaru xeex xeex yi quoi. donc loolu la de donc euh, mun naa ne daal foofu daal problème lay def yenn saay te loolu aussi daf lay stressé nga dem ci kii kii tamit génnee jikko wala tamit kooku voilà donc c'est ça quoi ba doo doo mën a xam fan nga war a toog sax. donc loolu aussi macha allah mais nag yaa ngi sant yàlla bu baax aussi. Ah, waaw alhamdulilah waaw. waaw ah, yàlla sant aussi ah. donc loolu aussi feeñ na fi bu baax a baax a baax léegi tamit mu def tamit loo rêvé woon loo xam ne da ko géntoon yàgg na loolu la. lu ma rêvé woon. waaw dans le passé mu nekkoon loo xam ne dafa nekkoon sa bopp. bon c'était sama sama gàll bi la woon ah et puis. sama gàll bi la woon ah. te sama kër. ah da ko géntoon. Ah, waaw géntoon di am kër wala ngay dugg ci kër gi. non di dugg foofu. Mhm. dugg sama kër waaw. waaw loolu génnoo après ah génnaatoo. loolu gënaatuma noonu. loolu macha allah loolu baax na mais soo génnoon mun naa ne baaxul de donc euh, dugg kër gi nga génn nga gént ko ngay dugg loolu dafa baax trop loolu dafa mel ni comme exemple yokkute la ci yow daal parce que dafay mel ni exemple nga dugg yenn saa sax mën nga dugg ci kër gi sax réer ci kër gi doo xam fal la buntu féete. loolu nag soo ko géntee rek xamal ne yaa ngi am yokkute quoi donc foofu tamit soo mënee génnee ñaari mbuus soow wala ñaari guro soo yeewoo ni matin bi wala nga jël ndox nga tuur ko foo xam ne fu set la ci garab kooku tamit baax na trop yokkute la daal. ok waaw wala nga nekkoon ci situation boo xam ne yaa ngi xalaat ndax dina réussir wala déet nee na soo géntee loolu aussi santal yàlla ko exo dafay mel niveau bi day exauster wu daal. alhamdulilah incha allah dégg nga jaaru aqiqa bi moom muy sa baaram. jaaru aqiqa ñaar kooku mooy sa sa garab moom mooy sa lépp. voilà waaw ah, loolu moom macha allah quoi loolu moom lu baax la ci yow. te puis tamit euh, tànk yaa ngi koy takk aussi mun naa ne yàlla rek mun naa mais quand euh, mun naa ne tamit euh, di ci gis résultat daal. incha allah voilà ah, bi téere nag da ko doon takk tekki wala. takk tekki rek waaw bu rek takk donc euh, nee na nag say téere soo ko mën di takk baax naa parce que ñetti téere laa fi gis de. Mm-hmm. wala mu ëpp ko sax. ëpp na ko. donc loolu la daal donc kilifa nga nag c'est normal ngay def yooyu aussi parce que dañ lay xeex de fois. Mm-hmm. te puis góor buggul ah aussi ah. war nañ. góor ñi moom dañ lay wor rek wala tamit doo leen déggoo. billaay walaay taalaay li nga wax nii rek moo taxoon may seet. kon gars yu mission. Ah waaw koo boot mu màttal. mu ngi nii de donc loolu la moo ah, de. donc côté é, ñi daal toujours del éviter da leen éviter loo mën. parce que koo ci bokk góor laa rek du ma mën a éviter góor ñi xam nga c'est c'est dommage gars yi doyale rek. ah mi noonu de koo defaral lu ah, baax mu fayal lu bon. Hmm, ah c'est ça. voilà donc loolu la. waaw mais kontaan naa foofu moom baax na moom. ah. boobu moom baax na moom gars moom. waaw waaw. ay koo boot mu matal. ah mais noonu tu ne peux rien faire moom loolu leen daw ay góor lañ parce que ñu la prochain looy doon doon sëy. waaw ah, te góor yéen a bokk ay mbir. donc c'est ça de loolu daal méfiance rek xam nooy defee rek si. ok ok donc solution bi loolu la encore. ok non y a pas de problème. tu observes après tu te méfies. amul problème. <laughs> kon maa lay gërëm di la sant. waaw mais incha allah je ne vais pas garder la ligne xam naa am ñu bëgg a dugg. voilà c' mais c' est une émission vraiment c' est intéressant quoi. di yàlla na bi gën a jëm kanam. amiin waay amiin amiin. da ngeen ciy yaakaar aussi yàlla na ko yàlla saafaral. amiin waay amiin jërëjëf def seen poste dara tamit. amiin ko borom télé bi muy def seen poste dara pour affaire yi gën a kii. amiin waay jërëjëf waaw jaajëf. jërëjëf waay. ok merci. voilà donc le dialogue ak yéen euh, di wax ni émission bi sen émission la émission bobo en direct la ak donc euh, ñu ngi à yéen ba 16h Inch'Allah. 88 628 71 71. allo oui. oui allo. allo. allo. soxna si yokal baat bi ñu mëna waaw. yokk naa ko dégguma la de allo ma lay degu wa na nga def ma ngi fi rek naka yaram bi ni ngi jamm jàmm ah da nga sori telephone bi déedéet sori mo ko sax de da nga sori telephone bi déedéet wa voilà ma lay degu jegeel jege si telephone bi ça va ça va bien nah, da melni ko ragal lan la do wax bu baax ma ngi wax bu baax mais xamna telephone téléphone bi écoute bi mo am problème kon réseau bi la voilà donc soxna si li ñëk feñ aussi moy yaakar yo xam yaakar yu tass la parce que néna lo yaakar euh, da ngay jék jék gis ni lépp do am aussi daf lay bett allô allô allô deug la voilà néna nak fofu na nga génné sarax nu mu gëna gaawé nga sacrifier ko da ngay génné ñetti guro yu weex ah ñetti mbuusu soow nga def ko jouru vendredi suñ julee jumaa ba noppi incha allah dégg nga. waaw nee na soo ko defee tamit dina baax trop dégg nga. waaw waaw nee na ki feebaroon kan la seen kër foofu wala koo xam. man la. yaa feebaroon. waaw mais feebar bi metti woon na de. metti na toog que dama gis nga mel ni ku tëddoon. mettitu bopp la nee na nag foofu aussi da ciy jóg ah parce que feebar la boo xam ne xaw na am na lu ci xaw a rax tuuti ah. ah. waaw am na lu ci xaw a rax tuuti mooy euh, lu ñuy wax affaire seytaane daal. dëgg la. est-ce que faj nga ko. damaa faj ba sonn mais xam naa dama tasanteegul koo xam ne mun na ma faj rek. ah mais il nga faj ko de parce que am na ñu ko mën a faj aussi ah. que ma nga boole. bon xanaa après suñ paree nga jël sama numéro. waaw waaw après ñu ah. jox ah. sa numéro si suuf. na la ko jox moom. On est en ligne après mu jox ok. ok voilà donc l'idée de ak yéen euh, di wax ni émission bi émission la émission Bobo Gisane, en direct la yéen euh, ci jeudi bi donc nous ngi wax 16h inshallah. donc 88 628 71 71. allo oui. waaw allo. si na nga def. tu ngi fi. naka yaram Alhamdulillah, carte ah? non pas mal ma. nga ma seetal ci Tu ci Tu ci yow ah? mm-hmm. Allô, mm. voilà donc les ma aussi moi au niveau des parents. Mm. côté parent yi dañ lay fiire wala nga nekk nit koo xam ne aussi ñoom seen bopp aussi bëgg nañ nga réussir. dëgg na. bëgg nañ nga réussir wala ñu lay fiire. allo allo allo. moom dem na donc moom ci boppam au niveau des parent moom bu fi ñëkk moo moo feeñ donc moom ci côté ay parents dañ koy fiire des fois donc euh, maa ngi koy gërëm di ko sant. 88 628 71 71 allô oui. allo salam Alaikum. malikum salam salam na voilà dem mon donc euh, di wax ni tamit réseau bi donc dj ciy jégalu bu bar, bar, donc 88 71 71 628 71 71 allô oui allô allo. donc euh, di delluwaat tax yéen di wax ni émission bi une émission la yéen mom émission bi donc euh, émission bobo gisaane en direct la ak yéen fu mu di wax ni tamit euh, képp ko xam ne na dugg aussi na yore après 88 628 71 71. Allô oui. na nga def. ça va. naka yaram bi. maa ngi ci jàmm. may ma carte hein allo soxna si. oui. voilà donc li ma ñëk a gis ci yow moy lo yoré mu génn sa loxo c'est-à-dire euh, mën nga yoré xaalis bu bari mais du yag touti mu démat lépp. dëgg la. voilà néna nak fofu da ngay génné sarax bi nga xamné soko défé dina baax trop aussi da ngay génnee gerte xot libre. Wa. ndax benn potu meew Gloria. Mom mhm. ngay jël nga jox ko un vieux benn pain. ok incha deng. nga. waaw mu def tamit benn couleur bu bleu ou rouge bu nekk sa wet su fa nekkee nga wax ma ko. couleur bu bleu ou rouge. ban couleur la. allo. waaw ne ko pousse poussal kii bi wala nga dindi ko carrément. parce day yàq sa set. bind naa voilà nee tamit euh, nit nga tamit boo xam ne au niveau relationnel wala ci wàllu mbëggeel de fois danga ci am ay jafe-jafe. waaw comme moment yi ñu toll nii am na kenn koo bëggante woon mais dafa mel ni ça ne marche pas ou bien tamit neexul daal ci xol. ay problème la di arrangé waat. waaw moo tax ma ne la neexul ci xol moom parce que gis naa ne daal déggoowu leen bu baax. dëgg voilà léegi nee na tamit yow lépp looy am sa àdduna daf lay bett. Mm-hmm. te puis da nga aussi. yaa may dégg. waaw man lay dégg. voilà nee na nag nit nga tamit boo xam ne ci wàllu voyage bi nga am ay parents yu voyagé wala nit yu la jege ñoo xam ne nekkuñu fi. waaw am nee na nag kooku di nga ko dégg ci kàttanu yàlla dégg

allo allo soxna si na nga def maa ngi fi naka yaram bi alhamdulilah léegi may ma tiré carte yi waaw allo soxna si waaw voilà donc li njëkk a ci yow mooy au niveau ci côté xaalis booy xaar ci nit wala tamit ngay waxtaan ak nit ci affaire xaalis kooku góor la dégg nga waaw waaw nee na su nekkee noonu la xaw na dëgër tuuti mais quand pour mu sotti nee na nag ma génneel ñetti guro yu weex nu mu gën a gaawee incha allah. waaw incha allah voilà nee na soo ko defee di nga ci gis tamit mu gaaw lool te puis tamit dina la jox. waaw waaw nag nit ko tamit boo xam da nga yaatu soo déggee yaatu mooy ku am wërsëg nga. te puis góor boo munti nekkal aussi gis naa ni tamit ay mbiram dina ubbeeku sa à dina am ay wërsëg daal.

dëgg la nee na soo mënee génnee ci bi wàllu liggéey bi ñetti jën yu ñorul nga génne ko nu mu gën a gaawee soo ko defee tamit incha allah dina baax trop. waaw ñetti jën yu ñor yi noonu da nga koy jox jigéen buy dem marché ah. incha allah jigéen na soo ko di nga ci gis tamit bu yëkkatu ko bu baax ci kàttanu yàlla. d'accord waaw nee tamit des fois da ngay am ay malaise tuuti yaram buy metti bopp buy metti euh, nga mel ni daal ku sonn loolu daal. allo. waaw maa ngi lay dégg. mel ni ku sonn lool quoi parce que yaram buy métti laa fi gis. allo allo. voilà donc euh, maa ngi koy gërëm di ko sant di ko nee nag na génne saraxu dugub nu mu gën a gaawee euh, ci wàllu yaram buy metti boobu mu jox ko koo xam ne xale bu jigéen la incha allah su ko defee dina tane ci jàmm salaam donc maa ngi koy gërëm di ko sant bu baax. allo oui allo. salaamaaleykum. Ah, maaleykum salaam soxna si na nga def. maa naka yaram bi. jàmm rek alhamdulilah léegi may ma tiré carte gi ah. soxna si. naam. voilà nee na cat bëri na ci yow lool làmmiñ. ah cat bëri na ci yow nee tamit su nekkee tamit am na góor booy waxal ci mbirum xaalis yow tamit nee na yaa ngi ciy dute ndax dina la jox wala du la jox. Mm, voilà nee na nag incha allah dina la jox ah. mais quand même da ngay génnee sarax bi nga xam ne moo fi feeñ soo ko defee incha allah dina sotti saraxu gerte kemb rek ngay génnee libre ah. saraxu gerte voilà incha allah nga saraxe ko nu mu gën a gaawee soo ko defee dina baax lool. incha voilà léegi nee na tamit au niveau ci wàllu borom kër. waaw waaw wala ci wàllu ku ñuy wax tamit góor boo nekkal daal nee na kooku dafa mel ni daal des fois da ngeen di am ay jafe-jafe wala ngeen amoon ay jafe allo voilà dangeen di am ay jafe-jafe wala ay wax yu sew daal. waaw ah, nee na nag su nekkee noonu la foofu dangay ngay génnee saraxu ñebbe nga saraxe ko libre rek. ñebbe waaw libre ñebbe moom ngay jël nga jox ko jigéen bu xees buy dox ci yoon. jigéen bu xees waaw soo ko defee di nga gis mu calme quoi di nga gis tamit wax yooyu dina dañ. waaw waaw ci yàlla dégg ci wàllu njaboot. njaboot. Okay. alo à, waaw ci côté njaboot da nga ci am ay jafe-jafe

sa biir bi am na lu ci nekk de amoon demoon nga ci docteur. waa demoon naa. waxuñu la da nga am kyste wala da nga am fibron. déedéet nee nañ dara. am nga dara de am na lu ci nekk de. Hmm. parce que loolu moo lay tere am dooma ah. hmm. parce que daf ma ko woon carrément aussi. Ah, d'accord. doo am ay règles yu metti règles douloureuses. si dina am. ah kon nag saytuwaatal docteur bi de demaatal feneen de parce que normalement dafa am loo xam ne moom moo lay tere am doom parce que daf ko wane carrément. Hmm. donc loolu il faut nga faj ko loolu nag ci hôpital nga koy mën a fajee mais pas nit ku ñuul bul dem ci nit ku ñuul de. waaw voilà donc soo demee foofu daal mun naa ne daal ci kàttanu yàlla dinañ la wax li mu la wax de. waaw def nga analyse. waaw def naa. def nga lépp analyse lan nga def sang wala gynécologie wala. Euh, analyse analyse yëpp presque def naa leen. lépp def nga ko. waaw gisuñu dara. kon changer docteur kon demaatal feneen dégg nga. waaw d'accord. waaw parce que am na loo xam ne daal moo lay tere am doom te loolu moom daf fi feeñ carrément. du du problème seytaane. déedéet lii du seytaane de lii du rab de comme affaire yooyu su nekkoon rab kañ dama lay ne traditionnellement ngay dem mais comme que dafa ma ne carrément am na lu nekk sa biir loo xam ne daf lay yàqal donc loolu aussi sa biir du rab wala mu am ay eh, jam-jam exemple ngay sentir muy mel luy jam. waaw noonu lay def. ah kon nag analyse yooyu de yi ñu la defaral noonu yooyu leeru de il faut nga demaat feneen daal dangay demaat beneen hôpital bu bokkul ak bi nga demoon. ñu saytuwaat la mun nañ la nañ trouver affaire bi. d'accord incha allah loolu rek moo la tere am doom ah, parce que loolu la ma wax. d'accord nii nii da indi bon xam nga pour preuve li mu lay wax dëgg la dafa dangay ngay ba pare fu mu nekk nii. kon lu xonk mu ngi sa wet. lu xonk. xoola bu baax. waaw muur naa ko. ah. muur naa ko. da koy dindi carrément parce que dafay yàq sa set ah, su nekkee noonu la aussi dafay yàq sa set soo koy joué ak man dafay yàq sa set de. dindi nga koy dindi yóbbu ko mu puus ko ci ginnaaw mu dem wala nga jox ko nit mu yóbbu ko parce que dafay yàq sa set parce que moom mooy indi bi may gis fii. dindi dindi nga ko. am na lu desaat encore dindi ko. soxna si. naam am na ñuy woote de. waawaa waaw signé naa ko de man kay yére bu marron laa sol yére bu marron. voilà très bien léegi daal loolu daal il faut nga dem ñu saytuwaat la quoi suñ ko defee. di nga gis di nga gis di nga am doom ci kàttanu yàlla. waaw d'accord. voilà loolu rek mooy problème bi mais leneen moom du ce problème parce que fi nga dem noonu nga ne ma def analyse analise bi des na de. waaw d'accord voilà donc xëy na analyse yi nga def ah yi ma lay wax bokkul de parce que yi ma gis fii gynécologie soo demee suñ la saytoo ñu def rajo lu ñu def daal loo xam ne daal dinañ ko mën a gis saytoo biir bi dañu am lu ñu gis foofu de donc loolu rek la kon maa lay gërëm di la sant jërëjëf voilà donc di delluwaat yéen di wax ni émission bi seen émission la émission booboo gisaane en direct lax yéen fu mu toll nii allo allo oui soxna si salaam ça maa ngi fi. naka yaram bi. maa ngi sant. waaw ah, yàlla nga sant léegi may ma tiré carte yi ah. waaw d'accord. allo li njëkk a feeñ ci yow mooy yaakaar jigul kenn mais yow tamit jaakaar yigu jigu la. waaw waaw. loolu lépp looy am sa àdduna dafay nekk loo xam ne luy lu lay bett la wala loo xam ne daal mën naa ne doo ci sonn. waaw voilà léegi nag euh, dafa ma won carrément aussi au niveau ci côté mbirum xaalis yow tamit même chose ah. su nekk ah. am na koo xam ne war na la jox xaalis. waaw. ku góor dina la jox mais nag li ma ci xaw a jaaxal mooy day xaw a yéex tuuti. ça c'est waaw léegi nag foofu dafa def sacrifice boo war a génnee pour loolu mën a sotti. Ah. li nga war a génne mu sotti nee na kànja ngay génne liibaru kànja. kànja. kànja voilà kànja voilà. waaw liibar rek ngay génne nga sarax ko koo xam ne aussi na nekk jigéen dégg waaw d'accord. waaw heure boo ko defee nag baax na. d'accord kii gaañu woon seen kër wala ku la jege kan la parce que ma gis affaire boobu daf la marqué woon. Hmm, waaw sama la woon la marqué nag ba léegi ah. parce que kooku euh, nit la koo xam ne xolam dafa rafetoon ci yéen bu baax. te ku baax la woon aussi. c'est voilà donc euh, foofu tamit soo ko mënee da génneel sarax bi nga xam ne moom lu mu gënoon a bëgg nga génneel ko ko nga saraxel ko ko kooku tamit soo ko defee dina baax loolu. d'accord voilà léegi nee na tamit euh, loo yore mu génn sa loxo aussi xaalis doo yàgg ak moom. waaw loo yore mu génn te et nit nga tamit boo xam ne ku bëgg xaalis nga comme ñëpp mais quand même <laughs> ku bëgg xaalis mu da nga bëgg xaalis. waaw. mbaa ay commerce ngay def wala da ngay yëngatu ci ay affaire mbirum xaalis. non non non. ah kon de ni ko bëggee nii moom metti na de. <laughs> xanaa Njaay nga sant. non pension xanaa. ah. pension pension. ah kon pension bi ngay xalaat nii. waaw. ok voilà donc foofu da ngay génne tamit sarax pour loolu sotti da ngay génne euh, saraxu xaalis pièce d'argent. pièce. waaw nga jox ko benn xale rek. yaa xam 100 francs la nga jox ko benn xale bu góor mais da nga ko def matinal ko. d'accord incha soo ko defee tamit dina baax trop quoi ci kàttanu yàlla de nga. d'accord affaire njaboot nag jaaxal na la lool. waaw c'est vrai kër daal. waaw. affaire njaboot affaire u kër nee na yenn saa dafay jaxe sa bopp trop voilà donc loolu aussi mën naa ne tamit ci kàttanu yàlla dina baax nag mais euh, nga baal ma sonnoon nga trop aussi. c'est vrai. waaw sonnoon nga te ba léegi tamit sonn boobu dañagul carrément. voilà léegi nag pour loolu tamit mën a dañ aussi euh, nee na soo mënee génnee yàpp bu ñorul nga def ko baax na. yàpp bu ñorul. waaw da ngay génnee libaru yàpp bu ñorul rek nga jox ko jigéen buy dem marché. wala nga jox ko ko xam kula jégué la inshallah soko défé aussi dina bax trop. d'accord bon pour preuve li lay wax deug la y une couleur marron noir bu nek sa wet. bu noir wa ça c'est vrai. voilà noir bobu aussi amna lu may won aussi moy yow do bëgg dugg ci lu lëndëm lu leer rek nga bëgg. c'est vrai doo koy dëgg la. donc non nga mel de nature quoi. c'est vrai c'est vrai motax tamit amo ay xarit yu jigen dem wax nga deug de. waaw ah, amoo ah, ay xaritu jigéen yow presque euh, ñi nga am ñëpp dem nañu. c'est vrai. waaw ah et euh, lenn aussi mu ngi ci yow aussi mooy au niveau euh, ci côté sa famille. waaw mun naa ne tamit des fois dañ leen di bëgg a jàppale mais loxo bi moo moo kiiwul daal c'est-à-dire am-am bi moo demeewul noonu. dëgg la dëgg la. waaw des fois may gis da ngay xalaat famille bu baax. xalaat kër gi xalaat noo leen di war a jàppale. dëgg la damay gis tamit euh, ay tolof tolof laay gis. dëgg waaw même soo nekkul taw aussi tu as de taaw. ah kay man maay taaw de. ah waaw loolu rek nu mën a demee <laughs> noonu rek la mën a demee quoi parce que dafa ma woon carrément daal lu mel ni taaw daal koo xam ne daal il est pour dimbali nit ñi mais. waaw tolof tolof yi moo koy xaw a sonal quoi. dafa metti. voilà dafa metti quoi mais quand euh, leen tamit dinaa la ko. mooy liggéey bi nga doon def aussi dina xaw am tuuti ralentissement wala mu amoon taxaw taxaw tuuti. Mm. voilà donc foofu euh, li mu lay wax aussi soo ko mënee génnee nga génnee ko mooy jën na nga génnee mm. euh, quatre jën yu ñorul. yu waaw nga fexe ba jox ko kuy dem marché jigéen ah. kooku tamit loo ci ñaan yàlla mën na la ko may ci kàttanu yàlla. d'accord te puis euh, y avait des moments yoo xam ne da doon gént ay gént yu bizarre. bu bizarre sax. waaw est-ce que mën nga ma wax benn ma firil la ko. waaw par exemple man keroog dama gént mel na dama gis ji daal ji ci suuf euh, ay mel na koy ji ay dugub yooyu xaw ma fu yaatoo yaatu. Ah. ak ma yeewu xaw ma lu mu doon. laaloon nga ko. ma encore ma ji euh, sama doom bu jigéen ñu togg ceebu jën boîte euh, plate bu ovale bi. Mm-hmm. daal di tuuru man xaw ma lu mu lu mu waaw. ceeb bi moo tuuru. ceeb bi ci boppam mais amuloon benn ndawal dafa tuur rek noonu. waaw mais lekkoo ci. non non non non. ah loolu loolu du dara mais soo ci lekkoon moom mën naa ne di nga feebar wala moom mu ah. lekkoon ci. ok mais comme que tuuru na rek macha allah loolu amul benn problème lu dul jàmm rek lay indi. Ah, mais quand même soo leen munee defar tamit comme ni nga géntee loolu ceebu jën boobu nga gént. ko nga defar ko ba mu baax. Ah. jox ko ay xale aussi kooku tamit sa sarax la la woon. D'accord. accord d' accord waaw leneen li nga wax nag mooy ah. comme exemple nga gént lu quoi. ah loo gént leneen li. may ji daal ji ci fi may ji dafa wow comprendre ma dara waaw loolu moo ma jaaxal. Hmm, comprendre ma yeewu nag. Hmm. bëgg na kuy ji ci hmm. suuf wow rek waaw. ah suuf si wow. waaw waaw comprendre ma. parce que foofu comprendre ma li nga bëgg wax. damay ji fekk fu bayal bu yaatu. waaw ma di fa te man di may lu mu doon. waaw mais loo ji. comme genre dugub wala ceeb wala si mais gis nga mu non non dama doon ji rek noonu. mais gisoo ay step comme exemple ay sax-sax yu ndaw yoo xam ne dafa sax tuuti. non non non non. gisoo ko. non non non. voilà donc foofu tamit euh, lenn laa lay wax aussi. Hmm. musulman nga. non non moi je suis une chrétienne. nga. oui dem ay Jérusalem. ah kay loolu rek laa xalaat. foofu di nga fa mës a dem de. gént bi loolu lay firi loolu mooy di fa dem. amiin parce que terre boobu nga gis foofu la. voilà. voilà foofu la te puis tamit di fa dem. merci. waaw loolu rek la daal. te yàlla na ko yàlla def am kii bi daal amoo gisoo dara ci kër gi lu loo di jaaxle daal. waaw ah, kër gi moom des fois da ngay xaw a am tuuti ay problème c'est-à-dire euh, mooy li mu la wax rek sànq. moo da leen di bëgg a jàppale nga gis tamit c'est une famille bon da ngay sonn. donc donc ñëpp ñu lay xool voilà donc yooyu rek la daal. mais kër gi amul problème ah? loolu la dañu teg lépp daal sama kaw. voilà dañ jël charge yëpp teg ko sa kaw voilà. d'accord te yow tamit nangu nga loolu aussi parce que gis naa ah, voilà kon maa lay gërëm di la sant ok merci donc euh, di delluwaat ak yéen euh, di leen wax mbir bi yéen ko moom donc 88 628 71 71. allo oui. oui soxna si na nga def. maa ngi fi. naka yaram bi. yaram baa ngi nii rek macha allah. alhamdulilah yàlla nga jàmm bu bëri. léegi may ma tiré carte yi waaw. soxna si. oui allo. voilà donc couleur bu rouge bi teggil ma ko ndànk nga pousse ko. loolu la. ah. rouge rouge la couleur rouge mu ngi foofu dindi ko. waaw. dindi nga ko. waaw dindi naa ko. voilà léegi dama gis tamit euh, dina am nit koo xam ne koo bëgganteel la ci wàllu mbëggeel walla ci wàllu loo xam ne daal di sentimentale. waaw su nekkee loolu am na aussi gis naa ni góor boobu aussi di ko bëgg moom tamit dina la bëgg. waaw. mais nag yenn saa yi da def ay doute. waaw walla ngeen di am tuuti ay réeroo ci ay kàddu. léegi nag su nekkee noonu la foofu da ut benn bougie nga taal ko. benn bougie. bougie bougie. waaw sondel. bu ndaw wala bu mag. bu ndaw. musulman nga. waaw. dañ ciy tari Fatiha nga wax turam sept fois nga wax li nga bëgg nga bàyyi sondel muy tàkk ba mu jeex. Euh, Fatiha sept benn yoon. benn yoon. turam sept fois. Hmm? Fatiha benn yoon turam sept fois. alo faat yaa ngay tari benn yoon. waaw tur bi nga wax ko sept fois. waaw turam. Ah. après nga wax ci li nga bëgg. waaw après nga bàyyi sondel muy takk ba mu jeex. waaw incha allah dégg nga. soo ko defee aussi di nga gis tamit di ngeen am jàmm bu bari te di ngeen déggoo bu baax. waaw bon pour preuve aussi eh, am na couleur bu weex bu la jege trop wala bleu. weex la wala bleu. Euh, am na weex am bleu. voilà donc weex bleu boobu aussi am na lu may woon si soo doon liggéey wala nga yëngatu ci dara wala nga nekk ci dara nee na di nga réussir. Ah. yaa ngi ci. waaw. soxna si waxal bu baax. waa voilà nee na yaa ngi soo si nekkee daal mën naa ne dina baax mais nag soo doon def comptabilité ou bien gestion wala finance nee na di nga réussir totalement. waaw. waaw rek nga may wax da ngay tontu. Hmm? am na wala amul. waaw. voilà donc nee na foofu dangay génne sarax sarax bi ngay génnee mooy na nekk tàndarma tàndarma waaw da ngay liibaru tàndarma incha allah. liibar waaw liibar. waaw te da ngay moytu ay wax yu sew dégg nga. waaw wax yu sew yi mun na nekk au niveau des copines wala ñi nga xam ne ñoom ngay jokkool nee na da ngay moytu yooyu bu baax dégg nga. waaw d'accord voilà léegi tamit euh, au niveau des parents gis naa tamit sa papa ñu ngi sant yàlla sa papa mu ngi sant yàlla bu baax wala tamit parents yi. ah. parents yi ñu ngi sant bu baax. waaw voilà donc loolu aussi on na ma ko te puis euh, tu as une éducation boo xam aussi bu baax la parce que li tax ma koy wax aussi moi da nga bëgg réussir pour dimbali parents parce que loolu tamit gis naa sa vœu la. souhait là quoi. voilà donc loolu aussi macha d'une di nga réussir ci kàttanu yàlla mais à condition aussi nga nekk koo xam ne aussi da éviter fréquentation c'est-à-dire si tu as des copines wala dara nee na del xew moytu côté bobo ah. waa voilà incha allah te puis tamit ana ki ñuy wax mama wala mami. mama wala mami waa kan la. Euh, mami mu ngi fi waaw. mu ngi foofu sa rakk la wala sa mag la wala sa lan la. Euh, sama cousine la. sa cousine la di ngeen waxtaan temps en temps. waa voilà kooku nit ku baax la aussi dégg nga. Ah. waaw mais nag euh, lenn rek moom laa gis aussi mooy au niveau des études yaa ngi doon am ay études yu avancé yoo doon def da nga ko arrêté.

te loolu aussi yàlla dina ko def dégg nga voilà ci kàttanu yàlla te na nga génnee sarax euh, tamit sarax boo xam aussi na nekk parfum nga génnee ko ah. parfum waaw waaw ut benn parfum bu neex nga sarax ko koo xam ne aussi mère bi la wala nga jox ko ku la jege waaw waaw incha allah mais na nekk jigéen ah ah na nekk ku jigéen jigéen voilà incha allah benn mère benn mère voilà sama maam tam baax na voilà soo ko ah. mun naa ko jox sama maam. waaw mun nga ko jox mère waaw ku la jege rek amul problème. waaw voilà nee na tamit euh, voyage bi lan la dafa am voyage boo bëgg a dem wala da nga nekkoon ci ay euh, mbir yoo xam ne dafa laaj voyage. Euh, bëgg naa jàngi mais sotteegul. te lijjanteegul ah, dara tamit. voilà nee na bul ci bul ci yàkkamti dégg nga. waaw di nga dem de ci kàttanu yàlla mais bul yàkkamti parce que dafa am loo xam ne il faut nga am ko fii ba noppi après nga soog a jàpp yoon bi. voilà inshallah. Pour tamit dina la wax donc trois pommes vertes. trois pommes vertes. pommes vertes. plus 21 euh, euh, morceaux de sucre. 21 morceaux de sucre. wa mom ngay uh-huh. jox ko bébé jigéen bu màgg. waaw une vieille dame dal benn mère dal wa ñoom soko ko defee rek incha di nga gis tamit euh, li nga xam mom ngay xëccu noonu comme ay prescription wala lo xam aussi ay kayit la nee na dina sotti. parce que gis na yaa ngi doon démarche yoy quoi kayit. waaw voilà donc inshallah dina sotti ci kàttanu yalla walu santé nak damay gis méttitu biir bu lay faral di dal kok c'est normal kok nekul feebar c'est passager hein ah loolu daf lay faral di met métti aussi il lay faral di métier. donc c'est dem di voilà donc rek la ma wax puis tamit euh, aussi kan Fatou wala Fatoumata Fatou Ça euh, oh. sama sa la ah le di wala faire hmm, un message ok voilà kooku tamit japp ko bu baax ah kooku ku baax la te nit la ko xamne aussi euh, ku bëgg bopam la daal. Ah. kon ma lay gëreum di la sante euh mais dama xam ñaari faat. da nga xam ñaari. ñaari faat. ñaari. ñaar nit nit yu tuddu faat faatu. wa ñom ñaar ñu samay xarit lañ. ah ñoom ñaar ñëpp sa xarit lañu. wa wa léegi kan mo ci xawa a xees tuuti. ñoom ñaar ñëpp xawa a xees. kan mo ci gëna ñool Euh, waa xam naa kan la. kooku jàpp ko bu baax. waa naa ko jàpp incha allah kon maa lay gërëm di la sant. Euh, mais xaaral sama benn mag daa bëggoon wax ak yow. kon na gaaw parce que gaa yaa ngi woote ñu waaw. laa ñu may mere fii na gaaw. allo allo oui. noo def sëñ bi. soxna si naa def. yàlla bu ah soxna si nga yokk baat bi de pour ñu mën a jokkoo. waaw ma ne sant yàlla bu baax. ah alhamdulilah yàlla nga dooli sant. léegi may ma tiré bi ah. waa baax na.

dëgg voilà léegi tamit mu def tamit euh, yow sa bopp su nekkee biir moo lay metti foofu da ngay génnee ñaari guro yu weex ak ñaari guro yu xàll. ñaari guro yu ñaari guro yu voilà incha allah nga jox ko koo xam ne aussi na nekk ñaari taalibe ku nekk nga jox ko ñaari guro ah. joxe fii ñaari guro yu weex joxe fii ñaari guro yu xàll. dëgg la incha allah dégg nga. waaw mu def tamit allo. waaw dama bëgg a xool samay mbiru doom. ñaari doom laa góor ak. sa mbirum doom. du góor walla jigéen. bu góor bi ñoom ñaari ñëpp. ma xool leen. waaw kon may ma tuuti ma xool leen. Mhm. allo. allo bi waaw amoo ci ñoo xam ne dañu war a voyager wala tamit euh, ñu war a déplacer wu. ñoom ñaar. wala kenn ci ñoom ñaar wala tamit kenn. non non waa ñuy déplacer wu waa tukki. ñuy tukki waaw. waaw ñaata la ñu ñaar. ok man ñooñu laa gis de. Mm-hmm. voilà nee na ñoom seen affaire dina baax de ci kàttanu yàlla.

baax na. voilà parce que lenn aussi am na mooy doom yi nga am yëpp aussi dañ réussir de. Oh, ci kàttanu yàlla parce que ay nit la ñoo xam ne dañoo xaw a méngoo seen ay pap seen seen pap daal. dëgg la dëgg la voilà donc loolu la daal dañu am réputation daal parce que ay nit la ñoo xam ne daal. mun naa ne dañuy góor góorgóorlu daal. yàlla baax te ñi nga am yëpp aussi ay jànkat la ñuy doon. ah yàlla baax voilà donc loolu la ma wax foofu. bon pour preuve aussi couleur bu bleu war na nekk sa yaram wala mu nekk lu la jege sax. dëgg la dëgg bleu. waaw na ma. voilà très bien donc jàmm rek laa ci gis mais soo leen bëggee wax tamit euh, nañu ut ay bracelet d'argent baax na ci ñoom. xale yi ah? xale yi waaw. Mhm. ay lama. Ah? bracelet d'argent nga leen ko. waaw lam xaalis. su nekkee mën nañ ko am te nit baax na. waaw dinaa leen ko yàlla. Ah. dañuy far faral li ñuy coow guddi trop ci wax ci dégguma la. maak sama jëkkër dañuy faral di coow guddi tuuti ay wax ju sew daal détail yoo xam ne doo xam lan la. dañuy faral di coow. waaw maak sama jëkkër. ah yox sa jëkkër. waa werante rek werante yi sew daal. waaw bàyyi ma xool loolu. waaw.

waaw mm-hmm. ah, ci moom la te puis tamit euh, dafa nekk nit koo xam ne aussi bëggul nga xamal ko dara ci côté boobu aussi ah. dëgg la. waaw ah, am na nag lu ko dal mm-hmm. ah. waaw loo xam ne aussi mën naa ne mënul taxaw wax la ko mais il faut mu lay daw yenn saay ko dëgg la dëgg la. voilà donc xam nga fi ma jëm wala ma wax mu leer. waaw xam nga fi xam naa fi nga jëm. voilà donc euh, foofu la quoi loolu moo ko dal te puis euh, du bëgg am gàcce ci yow. Mm-hmm. donc yooyu yëpp tamit daf koy dal. waaw daf koy daw ko daal mbiru yaramam daal wérul. mbirum yaramam la wërul daal ci côté boobu daal. Mhm. waaw donc loolu dafa yaramam sax moom wérul ci waaw wërul waaw yooyu xam nga soo wërul day dem ba après mun na la jàpp ci feneen encore foo xam ne foofu aussi moom ci boppam du bëgg yow nga xamal ko ci côté boobu dara. dëgg la voilà loolu moo tax moom mu lay daw noonu. te puis ku am kii la quoi kersa. daaw li wax yëpp dëgg la. voilà donc dafa am kersa ci nit. Mhm. donc euh, yu bari lu bëgg yow nga xamal ko ko wala mu am ci défaite voilà donc yoy lay ki quoi mais nekul ko xamné dal da ngeen di am problème problème dans le sens du terme. dëgg la dëgg la. <laughs> donc lool la lu ñu mën faj la nak aussi hein parce que nekul lo xamné aussi grave na bien autant de gravité. dëgg la lu ñu mën faj la quoi kooku tamit euh, voilà donc su ko kii woon tamit su ko fajoon aussi amul ben problème. dëgg la dëgg la. donc c'est ça quoi. Mhm. voilà mais foofu rek mooy problème bi. mais fan yi suñu kër gi dafa am wax ju sew. dama bëggoon nga xoolal ma ci loolu. sa jëkkër bi. non suñu kër gi. ah kër gi dafa am wax yu sew. problème mu wax waaw problème mu wax daal. ma xool loolu. allo. allo waaw. waaw foofu ñàkk déggoo laa ko gis ñàkk déggoo. dëgg la dëgg la. waaw nit ñi ñoo déggoowul seen biir. dëgg la am na ci nag ñett ñoo xam ne xaw ma dañuy xuloo wala dañu nekk ci benn côté mais daal dafa mel ni daal dañu nekk ci benn problème. ah. <laughs> dañu nekk ci problème benn problème. waaw ah, ñett lañu. ñett lañu waaw. voilà donc foofu mun naa ne problème boobu daal mooy indi toujours des problème problème kër gi daal foofu la. la. kër gi nag xaw ma loo leen ko bëgg a def de mais quand même daal gis naa ni daal li ngeen ko bëgg a def aussi yenn saa yi du sotti de. Ah. waaw dafa am blocage quoi. dëgg dëgg la dafa ñett ñooñu nag moom xaw ma lu ñuy kaas foofu mais li ñuy kaas foofu rëy na. rëy na kañ. nii noonu. Hmm? Ah, jaay. kër gi. waaw kër gu ñu bëggoon kër bëggoon jaay te ñoom d'accorduñ ci. mais du yomb de. Hmm. parce que ñett ñooñu. Mm-hmm. xaw ma nañu bokk ay mbir xaw ma nu mu demee noonu mais daal affaire du yomb parce que dina ci am kenn sax koo xam day bañ carrément. dëgg la am na. am na. waaw. Ah, mu ngi noonu dafay bañ carrément te kooku moom jaral na ko lu nekk. dëgg la. même soo leen koy rey sax du génn ci kër gi. dëgg la. <laughs> dëgg kii na. voilà loolu la daal donc loolu la mu wax. donc il faut fait très attention ci affaire jaay kër gi parce que ay affaire liggéey dina ci am liggéeyante. ah wax naa la ko de soo ci bokkee daal génn ci. Ah, waaw. parce que ay affaire liggéey ay liggéeyante daal te fii tamit di ngeen gis li mu leen wax. waaw affaire bi yombul de kër gi kër googu pour ngeen jaay ko yombul de. voilà donc euh, coupé na donc maa ngi koy gërëm di ko sant di ko wax ni tamit na def très attention ci kër googu ñuy jaay noonu parce que ay xeexante dina fa am dina ci am kenn koo xam ne kooku moom moom mooy bañ carrément. allo allo oui. salaamaaleykum maaleykum salaam sëñ bi na def. waaw yaram bi. waaye yàlla. alhamdulilah yàlla nga doon sant léegi may ma tiire ah. allo sëñ bi. waaw voilà donc euh, nee yow lépp looy def dañ nga ciy war a teel a jóg soo ci teelu a jóg du baax. ah. lépp looy def sa àdduna. waaw da ci teel a jóg soo ci teelu jóg doo mën a sotti. ah. voilà. Ah. voilà léegi nag foofu da ngay génnee sarax. waaw sarax bi ngay génnee mooy na nekk ñetti mbuusu soow. ñetti mbuusu soow. plus vingt et un tàndarma. ñaata. vingt et un tàndarma. vingt et un tàndarma waaw. ak vingt et un de sucre. 21 euh, morceaux de sucre. waaw ak tàndarma 21. waaw ak ñetti mbuusu soow. waaw nga lépp nga jël lépp nga jox ko benn paa. benn paa mag quoi. waaw benn mag dégg neen soo ko defee dina baax. incha loo jotee xale bu jigéen bi. ah jafe ay ah, feeñ na fi de nee na ma ah, am na jigéen boo joteel wala affaire xaalis la wala da ngeen déggoowul ci dara. waaw euh, est-ce ah kon moom la de parce que loolu la ma wax de des fois daf lay mere de wala yow nga koy mere. waaw loolu la ñuy dundee <laughs> loolu ngeen di dundee. Ah. kon nag defal attention dégg nga. Uh-huh. balaa seen diggante aussi euh, muy am ay yenn jafe-jafe yi daal. voilà ci kàttanu yàlla dégg nga. que nit nga tamit boo xam ne euh, mun naa ne nit ko boo xam ne baax nga lool mais yenn saa yi aussi dafay mel da ngay xaw soxor tuuti. ah ah des fois sa xol day tàng de te moom du la def dara day <laughs> tàng su la waxee waxu xaalis rek mer nga moo fi am de loolu am sax waaw donc waxu xaalis boobu xanaa xaalis bu bari la walla xaalis bu ndaw la walla lan la parce que may gis saay su la waxee waxu xaalis rek danga koy mere quoi waaw ay xaalis yu bëri quoi moom sama situation demeewul noonu quoi. ah ok dafay wax loo xam ne daal dafay ëpp sa dépense. voilà day ëpp loo xamante ne man aw ma loolu te ñaanuma yàlla def loo xamante ne. Mhm. dama koy forcer def ko ba di ko rëccuwaat quoi. effectivement voilà. voilà loolu moo tax quoi. voilà parce que dañ ciy insister pour ma def ko. Mhm. te man mënuma ñaan mënuma leb. c'est ça voilà donc loolu la ma wax. loolu loolu mooy sama problème quoi. moo tax euh, lenn aussi war nga ko di yërëm nag aussi même soo mënul sax mais l'essentiel defal mocc bi rek. non man lépp lu ma am. waaw ah. lu ma am jox naa ko. ok mais quant def lu ma mënul moom wax dëgg yàlla. ñaan hmm. yàlla quoi. voilà donc loolu la daal. waaw lépp lu ma am moom man maa am dañ koy mais problème mooy la su bëggee investir ci loo xamante ne man mënu ko. Hmm. waaw loolu foofu la ñuy xuloo quoi parce que man. Euh, su ma laajee dama koy jox. mais su demee ba yegg niveau boo xamante ne man yegguma foofu noonu. Mhm. parce que moom euh, gis na maa ngi liggéey dafa yaakaar ne maa ngi ci benn niveau bi te yegguma niveau boobu. Ah. loolu mooy problème bi mais loolu xam nga lan moo ko waral. Ah. moom dafa am ay nit ñoo xam ne ñu ko jege la. Ah. ay jigéen la ñuy doon mais ay jigéen la ñoo xam ne aussi seen jëkkër dañ leen di mettre dans de condition conditions. léegi nag loolu foofu lay teg bëtam nag moo tax su ñëwee ci yow aussi yooyu la lay imposer des fois. waaw mais kon xam nga bu nekkoon man dama ko dama ko won ne man maa ngi foofu. waaw nekkuma fa loolu day mm. xaw a day kii mais man chaque jour saa yu nekkee dama koy nekk fi nga bëgg a séentu fi nga bëgg a séentu boobu. Mm-hmm. ñaan naa yàlla yegg fa mais yeggaguma fa. très bien. donc loolu la mooy seen problème ah loolu rek mooy seen problème te puis euh, nga baal ma nag ci wax bi su demee ba mu yàgg tuuti euh, problème yooyu eggul rek automatiquement mun naa ne moom ci boppam sax day gis boppam te mun na sax jékki-jékki sax génn kër gi ne day dem kër yaayam wala day dem kër bokkam yaay deuxième personne bu ma ko wax. ah maay deuxième personne bu la ko wax. ah foofu ngeen di egg de. Mm-hmm. vaut mieux nga naxante ak moom walla tamit nga woo koo xam ne kilifa la. mu ah. toog ak moom mu toog ak yow. mu wax ci moo gën a rafet mais yéen ñaar mu leen régler moment yi ñu toll nii yéen ñaar doo doolu mën a régler problème bi. il faut nga woo benn kilifa rek boo xam ne soit da ngeen di toog mu am témoin sax au moins lol mo gën mais sul continuer ni man ma la wax sey bi day dem ba après mom ci bopam moy gedd dem yonam fekk ni bëgg aduna nga bal ma ci wax bi bëgg ay mbirum aduna wala tek la fo xamne ne pour mom yow yor nga xaliss da nga bañ voilà ngeen di rero ci ay wax donc c'est ça donc il faut éviter yenn ki dal yenn euh, ki yu bari il faut nga toog ben wajur la ci kàttanu yalla voilà légui tamit mu def tamit ci walu euh, commerce soko don def di nga réussir. waaw. Ah? commerce donc soko don def di nga réussir commerce. waaw man ci boutique la nek ni di jaayel ni quoi mais man yoraguma sama yefu bop quoi. voilà nee nak nag góorgóorlul di nga dem ba après di nga momal sa affaire sa bop mais nak gawul gaawul. Ah. gawul de. waaw loolu moy problème bi nak voilà mais dafa xaw deuguer quoi. voilà dafa deuguer mais quand même japp rek bul bàyyi. waaw parce que jàppal bu baax te puis euh, di nga dem ba benn moment boo xam di nga sant yàlla mais boobu loolu yaa koy ubbil sa bopp mais nag loolu jotagul loolu benn kilifa bu am xaalis booy gisee kooku moo lay jàppale après. moo lay financé moo lay defal loo bëgg. Uh-huh. kooku nag nit la koo xam ne ku lay estimer la te nit la koo xam ne aussi dafay taxaw pour jàppale la kooku gisagoo ko nag kooku di ko gis. Uh-huh. voilà ci kàttanu yàlla pour preuve li mu lay wax tamit dëgg la. mooy amoon na benn couleur bu jaune bu nekkoon sa wet wala bu mel ni lu xaw a kii daal noir. waaw jaune a ngi fii sama wet de. voilà très bien donc loolu mooy dëgg bi quoi mooy li mu la wax lu dëggu la donc man li mu lay wax daal mooy bu yàkkamti bu la sa jabar dugal ci loo mënul aussi. donc euh, te puis patienteel aussi nga góor góor bu baax te di nga gis tamit di nga sant yàlla bu baax. incha allah dégg nga. mois bi nag mois bi di nga ci jóg de mois de décembre di nga gis affaire dina leer nañ. mois décembre bi di ñëw nii incha allah de di nga ma mës a woo fii de nee ma de affaire de mu ngi baax ah. ci kàttanu yàlla parce que dafa ma ne d'ici quelques mois dina am looy am ci kàttanu yàlla ah. voilà donc maa lay gërëm di la sant euh, pour côté santé nag waaw kon may ma xool ko Thank you. gis da ngay sonn lool waaw li lay sonal daal yow soo ñàkkee xaalis da ngay mel ni ku feebar ah, hmm? ah. soo ñàkkee xaalis da ngay mel ni ku feebar doo bëgg a wax kenn loolu rek problème la loolu rek feebar la dama tàmm déplacé quoi <laughs> léegi nag soo mënul nag automatiquement da ngay mel ni ku feebar doo bëgg sax jóg kër ga ah. mi ngi noonu donc feebar daal gisuma ko fi lu dul daal ay xalaat yu bëri laa fi gis allo. waaw loolu ci la voilà loolu la daal donc euh, problème de bopp la daal xalaat yu bari stress donc yooyu la daal te loolu su fonctionné wul dara du fonctionné ah bopp bi. voilà donc loolu rek la mais man li mu lay wax daal mooy daal bon del jógal sa yaram daal. waaw. Euh, léegi su ma bëggoon bëggoon am am sa numéro léegi nu may def. waaw léegi da ngay téye bi régisseur bi jox la ko. waaw voilà nga laaj ko ko. maa lay gërëm di la sant. allo wi allo. allo oui maa ngi fii na yaram bi ça va. léegi may ma tiire ah. allo soxna si. waaw xol bi neexul ah sa xol bi neexul dara dara dara. waaw xaw ma nag looy xalaat mais daal nee na ma daal xol bi neexul wala nga bëgg a def dara mu mel ni daal lépp dëgër wala mu mel ni daal loo bëgg te sotteegul. ne su nekkee noonu la foofu jógal sa bopp nga génnee sarax yi nga xam ne moom laa lay wax nii nga def ko soo ko defee rek incha allah dina baax dangay génnee 4 banaan. banaan banaan. banaan voilà 4 ngay génnee nga jox ko 4 taalibe ku nekk nga jox ko benn. allo. allo incha allah nga joxe ko dégg nga. waaw waaw ah, nee nag yaa ngi ci euh, foo xam ne aussi mun naa ne yaa ngi sant yàlla bu baax parce que ñi la wër aussi ñu ngi sant yàlla bu baax aussi ci secteur bi nga nekk walla ci famille bi nga nekk. voilà ñu ngi sant yàlla bu baax parce que gis naa tamit amuñu kenn ku ci am problème lu dul yéen ñëpp daal yéen a ngi ci jàmm. voilà mais nag toujours aussi yow sa yëfu bopp ngay bëgg c'est-à-dire da nekk nit koo xam ne aussi da ngay bëgg amal sa bopp. voilà nee na nag euh, lu mel ni liggéey bi nag laa xamul ndax euh, da nga mosoon def secrétariat wala tamit danga mësoon dugg ci benn liggéey mais lu mel ni affaire u kayit daal laa gis. affaire liggéey ci këyit ah. allo wax bu baax damay ñaw da ngay ñaw waaw musoo jàng voilà donc euh, là aussi nee na nga bàyyi sa xel même su nekké ñaw la aussi di nga dem ba gérer sa bop hein voilà parce que daf ma won carrément dal fofu nga nekk aussi mën na né yang fay sante yalla bu baax de wa mais dafa def sacrifice bo xamné dang ko wara a hein da nga yoré këyit xana dama yor këyit këyit fi nga toog noonu danga yore këyit këyit papier. papier kon papier bi lan la. amul livre bu nekk foofu wala wala këyit wala dara. xoola bu baax. livre. livre ah. ok livre bi nu mu mel. ah. bu la amul blanc. waxal bu baax. ma ne bu gris la amul blanc. ah gris blanc voilà donc là aussi am na lu ma woon foofu ah parce que nee na ma euh, soo góorgóorloo liggéey bi ngay def noonu aussi di nga dem ba sant ci yàlla mais yow yaa koy yow yaa koy moomal sa bopp yaa may dégg allo voilà donc maa ngi koy gërëm di ko sant 88 628. Euh, 71, 71. Allô Allô, oui Oui, bonjour. yokkal baat bi soxna si. Euh, waaw dama bëggoon. Euh, allo. soxna si. waaw maa lay dégg bu ah man maa déggul da bi. na nga def. ngi fi. yaram bi. ça va. alhamdulilah léegi may ma bi ah. soxna si xel bi toogul sa xel bi toogul dara. <laughs> Ah, toogul moom. toogul ci loo bëgg yenn saa ci mbirum àdduna nga gis mu jafe la. Mhm. mu am benn vide aussi bu nekk si diggante ku góor wala daal mu am benn vide daal ci wàllu relationnel. Mhm. mais su nekkee noonu la foofu da ngay génnee sarax ci nu mu gën a gaawee nga def ko sarax bi ngay génnee mooy lu ñuy wax ñetti guro yu weex ak ñetti sondel yu ndaw ñetti guro yu weex ak ñetti sondel yu ndaw ah yu weex ok yu weex voilà mhm. nga jox ko benn nit rek yaa xam góor la wala yaa xam jigéen la waaw d'accord incha allah dégg nga mu def tamit looy dute yenn ci mbirum koppar wala xaalis boo xam ne soit boo waroon yóbbu la wala bu ñu la war a indil la mais dafa mel ni dafa am jafe-jafe voilà nee na su nekkee noonu la aussi wala ñu yoreel la xaalis aussi parce que yooyu yëpp tam mën na nekk mais su nekkee noonu la foofu da ngay génnee saraxu benn ndabu laax ngay génnee benn ndabu laax waaw ndabu laax mën nga ko def n'importe quel jour mais na nga ko def vers les coups de 17 heures incha allah d'accord voilà léegi tamit nit nga tamit boo xam ne koo defaral lu baax mu fay lu bon surtout jigéen voilà te bariwoo ay xarit yu jigéen aussi mm-hmm. waaw xol bi lu tax mu vide parce que dama gis sa xol bi mel ni lu vide sa xol moo neexul wala da nga weddi ñu bari non yaram bi moo neexul. ah yaram bi moo neexul. Mm. voilà nee na su nekkee tamit yaram bi la aussi jàpp na sa esprit aussi. Mm-hmm. ah. na bopp bi de aussi. Mm-hmm. parce que soo déggee ma ne jàpp na bopp bi mooy am na looy bëgg. lu aussi dafa pour nga parce que même vie sentimentale aussi ça ne va pas de waaw dama gis dal lo xamné dal des fois da ngay tok diko xalat wala voilà nak fofu euh vous tamit dina la ko wax nit nga tamit aussi ci walu santé aussi digli moy metti wala tanki non en général la yaram bi yëpp la. yaram bi yëpp la. Mhm. ok mooy li mu la wax rek esprit bi la daal sa esprit daal <laughs> sa esprit bi daal moo xaw a am tuuti euh, loo xam ne da koy bëgg mu jafe la parce que loolu la fi wone te nit nga tamit boo xam ne mënoo wax nit sa soxla. Mhm. allo. si mënoo wax nit sa soxla. waaw mhm. ah, lu bëri daal danga koy nëbb daal moo tax tamit euh, toujours aussi saa su ñëwee aussi dafay metti ci yow. donc lepp looy def aussi dafay mel daal dafay ci yow donc là aussi fait une couleur rouge bi ngi rouge. waaw nga en fait téléphone ah kon du dem de répété. ma couleur bi. soo téléphone bi la ah kon nag kon nga ba d'accord waaw maa ngi lay gërëm di la sant. voilà donc di delluwaat tax yéen euh, di leen wax ni aussi euh, yéen a moom euh, mbir bi donc mun ngeen wootee ci vingt 88 628 71 71. 88 waaw sëñ bi na nga def. waaw maa sant. waaw yàlla nga dolli sant naka yaram bi. waaw dama maa bu baax a baax. Hmm? waaw euh, euh, ma seetal la. waaw léegi maa ngi ci yow. may ma tiire carte bi. nga yokk baat bi dégg nga. allo sëñ bi. allo. waaw voilà donc li njëkk a feeñ ci yow mooy nit nga tamit boo xam ne mën naa ne ci wàllu liggéey walla ci loo xam ne ay soxla la des fois da nga ciy am tuuti ay tolof tolof. Hmm. mais nag su nekkee noonu la foofu da ngay génnee ginaar boo xam ne séq lay doon ginaar bu weex ah. ginaar ah, un coq blanc. waaw waaw. moom ngay jël nga ñaan sa soxla yëpp après nga sarax ko koo xam ne aussi na nekk kuy génn ci jàkk. waaw musulman ko d'accord voilà nee na nag yaa ngi ci ay mbirum xaalis wala ci loo xam ne daal mën naa ne affaire mbirum xaalis daal feeñ na fi mais dafa mel ni dafa dëgër. Ah. Ah. waaw xaw ma ndax ay waxu xaalis la wala tamit ay dugg wala ay dugg-dugg yoo dugg mais dafa mel ni daal lépp dafa dëgër. waaw sëñ bi tamit dem na mais moom ci boppam euh, maa ngi koy gërëm bu baax mais quand ay mbirum xaalis yi dafay mel ni daal dafay dëgër ci moom na génnee sarax euh, gerte kemb benn kilo. ci kàttanu yàlla donc mbokk yi euh, émission bi jeex na donc maa ngi di gërëm bu baax a baax a baax a baax di gërëm aussi mbokk yi nga xam tamit ñoom ñoo fi woote aussi te mënuñu dugg aussi maa ngi di jégalu bu baax di gërëm aussi mbokk gouvernement bi aussi di ñaanal ñoom ñëpp aussi yàlla na leen yàlla may yoonu yokkute ne ñoom moom la ñuy ñaan di ñaanal aussi mbokk yi nga xam te ñoo nekk ci hôpitaux yi maa ngi di ñaanal yàlla yàlla na yàlla euh, ba ñu jóg ci jàmm ak salaam di ñaanal aussi ñi nga xam ñoo nekk ci prison bi aussi yàlla na leen yàlla bàyyi ñoom ñëpp aussi ci kàttanu yàlla di gërëm aussi mbokk LCS tamit ñi nga xam tamit ñoom ñoo fi nekk nek di gërëm alu aussi ki nga xam tamit mom moy régisseur bi ma koy gërëm bu baax diko ñaanal yalla aussi yàlla na yalla yàlla euh ba nga xam ne euh, mu am lim bëgg aussi ci carton yalla donc ma ngi di gërëm di leen sante ba dimanche inshallah à partir de 22 h jërëjëf